bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimih wa man daa bi daawatihi wa saara ala hadiyihi ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante yàlla sunu boroom julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bi di leen ndokkeel tam ci weer wii tey di bisu ajjuma di juróom-ñeenti fan ci safar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ajjuma yële jàll am na waxtaan wu ñu tàmbali woon di ci laayante biir ak yéen te mu jëmoon ci ixlaasul amali lillahi azza wa jal moo di nit ki lépp lu muy def na yàlla rek tax na ko yàlla rek lal na ko sellal rek lal ndax jëf joo xam ne yàlla taxut wala dañ ca kooj leneen lu dul yàlla boroom mën na caa sonn waaye lam cay séentu du ko ca am yàlla nu ci yàlla musal ñu waxoon keroog ne jëf joo gis am na biir ak bitti yére yi ngay sol ni mu mel nga xam ne am na biir am na bitti jëf joo gis am na biir am na bitti biir bi mooy wàllu yàlla mooy na yàlla rek tax moo tax sang ba waxoon ne innamal amalu binniyaati jëf yi mi ngi aju ci pas-pas yi ak yéene yi mooy biir bi waaye bitti bi nag mooy li ngay jëf te nit ñi mën caa teg seen bët na nga fexe ba mu dëppoo ak sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy tegtalub waxam ja ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ku jëf joo xam jëf-jëf joo xam ne dafa wuute ak sunu mbir te mooy sunu sunna dañu ko koy delloo alquran nag biir bi ak bitti bi da ko junj ba tàyyi am na fu muy waxe na képp koo xam ne wóor na la ne da nga sa borom na nga jëf-jëf ju baax te jëf-jëf ju baax mooy ju dëppoo ak sunna te bul bokkaale yàlla ak dara te mooy sa pas-pas ak sa biir na yàllay kese fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada loolu nag war naa tax ba sunuy jëf yépp ñu fexe koo sellal te fexe koo dëppale ak sunnas ngën ji mi def alayhi salaatu wassalaam ñu waxoon keroog ne nit ki ni muy xamee ne jëfam ma nga cey góor-góorlu ba mu sell am nay tegtal ba ci jëkk moo di nit ki bu fekkente ne bugg siiw ndax xam na ne siiw mën naa xajamal diineem siiw mën naa xajamal pas-pasam tax na ba du wuta siiw kooko mën nañoo rafet njortu ci moom ne la muy def yàlla rek moo tax waaye ki nga xam ne lu muy def day bëgg ñëpp yëg ko ñëpp xam ko kooko na seetaat boppam waxoon nañ fii keroog ne góor yàlla gu ñuy wooye Ibrahim ibnu Adham mos nañ koo laaj ne ko ndax sa xol mos naa sedd mu ne waaw genn guddi de sama xol sedd na dama doon tukki guddee ma jaar ci dëkk fanaan ca jàkka ja ca njël bilaal ji ñëw di noddu si fekk ma tëdd ci jàkka ja mu defe ne ku yaramam neexul laa mu jàpp ci sama tànk diri ma wat ma ba ci bitti mu sànni ma fa euh, te booba su xamoon ki muy diri kum doon dana ko tuub ndax ndax day nitug yàlla mu ni umpule gëm ma umpule ba xamul maay kan ba di ma diri di ma yóbbu ci bitti euh, dama caa sant yàlla xam ne yàlla nëbb na ma xam ne yàlla li mu denc ci man wéeru ma su ma weeroon kenn du ma def noonu kon nit ki day fexe ba du bëgg a siiw fekk yaa ngi wut a siiw nag na nga seetaat sa bopp ba ko ñaareel mooy dangay ngay tuumaal sa bopp da ngay xam ne li yàlla bëgg ci yow la nga ca xamul moo ëpp la nga ca xam li yàlla bëgg ci yow la nga ca xam la nga ca munul moo ëpp la nga ca man li yàlla bëgg ci yow la nga ca man la nga ca jëful moo ëpp la nga ci jëf li yàlla bëgg ci yow la nga ca jëf la nga ca sellal moo gën a néew la nga ca sellalul li yàlla bëgg ci yow nga jëf ko xam ko man ko jëf ko sellal ko wóorula ba xam suñu borom nangul na la wala déet loolu nag day ay eh, diggante yu xat yoo xam ne nit ki su ko dee xalaat day tuumaal boppam danaan man de li ma war xawma ko la ma ca xam ako néew mënuma ko la ma ca man akus néew jëfuma ko la ma ca jëf akus néew amaana sellul la ca sell xawma yàlla nangu na ko wala déet soo ko defee yaa ngi tuumaal sa bopp ba ca tege moo di lu baax li ngay def na koy nëbbu ni ngay nëbbi sa jëmm na ngay nëbbu say jëf ba kenn du ko xam euh, tabax soo ko gisee am na fondement boo xam ne moo ko yenu te ma nga ci biir suuf kenn du ko teg bët te moo tax fondement ba bâtiment ba taxaw kon nag la am taax kenn du ko teg bët yow it na nga fexe ba say jëf la ca ëpp solo kenn du ko teg bët kenn du ko xam ndax mooy tax ñu xam ne yàlla rek moo tax nga def waykat ba nee na xafiyal asaasu an al uyuni tawaaduan min baadi ma rafaa al binaa mashida nee na taax ma ma nga ne sëng ca kaw waaye la ko téye ma nga ca suuf te kenn du ko teg bët la ca tege mooy li ñu xame xame ne yaa ngi sellal say jëf mooy dangay ngay yemale nekk ca kanam mbooloo ak nekk ca ginnaaw mbooloo mooy soo nekk ci mbooloo ak mbooloo mu mën a doon kuréel gu mën a doon mbootaay gu mën a doon dangay ngay yemale ñu jiite la ak nga jiitu waaye feeg dangay taamu ne ca kanam nit ñi nekk ca ginnaaw naga nga seetal sa bopp ab jullit rawatina ab taalibe du sawar ci jiite dañuy wañ loxoom mu door a jiitu waaye soo soo dee yootoo jiitu nag na nafaraat sa xol nanga nga nafaraat sa pas pas te xam ne sa sellal des na lu baree bari buñ ci jógee nag dañuy ñëw ci nit ki góorgóorlu ba am ixlaas ay jëfam moo koy sellal ngir jëmme yàlla lum koy jural lim koy jural lu baree baree bari la waaye dañ ci tënk ay tomb ba ci jëkk mooy day am xel mu dal am xel mu dal mooy li gën a jafe ci àdduna xel mu dal lu koy maye mooy soo jógee xam fi nga jëm xam yoon wala fa jëme sam xel day dal ndax ki jóg xamul fi mu jëm xelam du dal ki xam fa mu jëm xamul yoon wa ko fay yóbbu xelam du dal yow nag xam nga fa nga jëm xam nga yoon wala fay jëme ana foo jëm ngërëmul yàlla rek ngay sàkku jullit na sàkku ngërëmul yàlla kon xam nga fa nga jëm ana nag lan moo la fay yóbbu wan yoon moo fay yóbbu mooy nga bañe boole yàlla ak dara kennal yàlla wéetal yàlla looy def yàlla rek a tax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

أشهد أن محمدا رسول محمد رسول الله sunu boroom dafa missaal jullit bi wéetal yàlla euh, bañ koo booleek dara da ko missaal ci jaam boo xam ne dafa am benn sang xam na li neex ab sangam ca xëy ca gont xam na li naqare ab sangam du ko jege kooku mooy jullit bi nga xam dafa wéetal yàlla li neex yàlla ca lay xëy ca gont waaye li yàlla bañ du ko jege waaye ki bokkaale nag mu misaal ko ci jaam boo xam ne dafa bari ay sang te sang yi bokkuñ ay bëgg-bëgg bu ko sang biine jógal biine ko toogal bu ko sang bii ne demal bii ko bul dem su ko defee ci jaaxle lay dëkk daraba allahu masalan rajulan fihi shurakaau mutashaakisuun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyaani masalan alhamdulillahi bal aksaruhum laa yaalamuun moom la sëriñ bi da wax ne ku jublu yàlla rek rek rek dana noppalu noppale waaye ku jublu leneen dana sonn sonle fa man ila bi nafsihi fi kulli wa araax wa man ila ila siwaahu maala taiba bi nafsihi walan yazaala mutiba muy nit ki su góorgóorloo ba am ixlaas day am aw fit ndax kii yóotu alal euh, bu xamee ne diw mee mën na ko ko xañ dana ko bàyyi xel kii yóotu daraja bu xamee ne diw mee mën na ko ko xañ dana ko bàyyi xel kii wut ndomboog tànk dana bàyyi xel ka ko ko mën a jox ak ka ko ko mën a xañ waaye kii wut yàlla moom leneen lu mën a sàkku day xam ne yàlla rek moo koy joxe waaye yàlla rek tam mooy xañe su ko defee day am fit du ragal dara addurru wa nafau min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani nit ki soo xamee loolu dee su ko mën a xupp dee su ko mën a xëpp qaalu li yarkan li abwaabi salaatini ba ba ko borom di wax aw fit foofa la mën a yem te la tax mu am fit wa mooy dafa jóg dëgmal kenn te mooy suñu borom di jëf ngir moom di bàyyi ngir moom ba ko ñetteel mooy nit ki su amee ixlaas day tax ba day xam ne ab jullit rawatina ab murit du wàcc mooy la muy jëf du ko bàyyi kiy jëf ngir ma sàmba wala ma dem ba nag bu demee ba lam doon séntu ca ma sàmba yaakaarutu ko walla lam doon séntu ca ma dem ba amatu ca yaakaar mën naa tekki ak laxasaayam waaye kiy jëf ngir yàlla day xam ne yàlla du fi jóg moom te yàlla du jeexal su ko defee du tekki laxasaayam du wàcc ndax day xam ne jullit du wàcc rawatina taalibe murit moo tax ñu ne maa kaana lillahi daama wattasala wa maa kaana li gayrillahi inqataa wan fasal bokk na ci meññetum ixlaas boo de sellal di sellal ba muy sa jikko suñu borom lam lay añale mooy dama jëlale say jaamu waaye say jëfi aada sax danga nga ciy am tuyaabo say jëfi aada loo def rek suñ borom dalay bindal tuyaabo da ngay fab njël jox sa soxna mu togg nga jariñoo yaag sa njaboot waaye suñ borom dala koy fay te joxe njël jëfi aadala la su ko defee kon yàlla dalay fay sa jëfi aada moo tax sëriñ bi wax ne wajaal bi jaahil muntaqa aadaati takarruman ka amali saadaati li may jëf mu jëfe aada nag ma ko defal muy ak jaamu yàlla ba ba ca tege moo di boo amee ixlaas di ca góorgóorlu da ngay dem ba lépp loo tàmbali te mënoo ko yeggale soon borom dalay fay yoolu ku jëf ba yeggal xoolal ki génnoon këram di def jihaad ci yoonu yàlla far yëggul fa ñuy xeexe faatu suñ borom da koy bindal tuyaaboy ku yegg xeex ba ñu rey ko wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi summa yudrikhu almawtu faqad waqaa ajruhu ala allah wa kaana allahu gafuran rahima bokk na ci barkeb ixlaas mooy soo yéenee jëf te munoo ko dañ lay fay Euh, yoolu euh, ka nga xam ne dafa jëf yow da ngaa yéene rek te jotoo jëf dañ lay fay yoolu ku jëf mi ngi mel ni guddi ngay tëdd am yéene yi su ma demee ba ñetti waxtu ci guddi danaa jóg naafila nga far biddanti suñ borom dalay bindal tuyaabooy ku naafila guddi te jëfoo ko waaye da nga yéene wala weeru koor nga gis ndaw ku ndaa boo xam day waajal xaddam ngir dundal sunna waaye mu karmat du tee dañ koy bindal tuyaaboy ku xadd ngir dundal sunna moo tax ixlaas day tax ba soo yéenee soo yéenee jëf te jutoo ko jëf sax dañ lay bindal tuyaaboy ku jëf bokk na tam ci barkeb ixlaas moo di soo jëfee sax mu am njuumte ca jëf ja dañ lay fay tuyaaboy ku juumul ku jëf-jëf ji jub imam yi dafa solo ne am na waajoo xam ne dafa bàyyi ba guddi mu génn génn alalam dajeek euh, génn góor mu jox ko sarax ba guddi ga ca tege mu génnewaat alalam dajeeg génn jigéen mu jox ko sarax ba bàyyi ba bisub ñetteel ba mu jël alalam dajeeg beneen waay mu jox ko sarax ba ndeke këm njëkk a sarax euh, sàcc la nit la koo xam ne su guddee day jóg di jël alali jàmbur ndeke guddig ñaareel ga kamu sarax jigéen la joo xam ne day dox guddi ndeke guddig ñetteel ga kamu sarax waala waaye la joo xam ne moo ëpp alal ci tund wa kon dafa juum ndax ab sàcc kenn du ko sarax ku woomal kenn du ko sarax jigéen ju génn guddi topp bakkanam kenn du ko sarax kon dafa juum waaye kamu mu saraxoon te ab sàcc sarax ma tax na xolam tooy ba mu tuub ba bàyyi sàcc kamu mu saraxoon te muy jigéen juy dox guddi sarax ba tax na ba xolam tooy mu ne bu ñëpp meloon ni kii day dootuma génn guddi tax na mu tuub ba bàyyi dox guddi ka ko ñetteel di ku woomal sarax bam ko sarax tax na ba mu ne kii day wax war na maa roy ci moom ndax yàlla wëccu ma mane na ma gan te du ma dimbale kenn kon nag fas naa yéene bis di ko di dimbali ñi ma tane kon gis nga ne ñetti sarax yépp dafa juum waaye njuumte la gis nga la mu jur tax na suñu boroom fay ko toyaaboy ku dàkk euh, lu baax jam ko ku fexe lu baax ba am ko kon daal ixlaas melokaan la woo xam ne képp ku yàlla baaxe ba nga góorgóorlu ba da ca nab nabi ba yoboo am yaakaar waaye bul naagu ndax seytaane day koo xam ne dafa bari pexe te it day koo xam ne bëggul ku naagu xam ngeen ne ñi ngi dëgmal bis bu màgg ñi ngi dëgmal bis bu tedd fan yii bi mu teroo ba léegi koñ boo dem wala dëkk boo dem da ngay gis tuut tànk yi di ko teeru di ko waajal di safar safar yooyu nag nañu ci bàyyi xel am na ñoo xam ne dañu koy topp di ca def lañu am lépp ba bu ñu àggee ca bis ba dootu ñu am lu ñu def ca bis ba te bis ba mooy santaane cheikhul xadim fukki fan ak juróom-ñett mooy ndigal li kon nag di ko teeru di ko gàttandu jëf ci la nga am ba bu egsee doo am loo def mat naa bàyyi xel ba ca teg mooy ni ñu koy defee tam nañu koy seetaat di woo euh, ay sëriñ daara yoo xam ne yër nañu aslëf ñu leen di xamal lan la sëriñ bi bëgg ci bis bi di leen fàttali njàngalem sëriñ bi ak i jaar-jaaram ak mag ñi nga xam ne moo leen toqi def ci ñoom la mu def ci ñoom su ko defee di waxtaane baaxuk sëriñ bi euh, baax na lool te it kenn du ci doyal waaye nag di waxtaane li sëriñ bi bëgg ci nun moo gën a doon farata la ca tege moo ni buñ koy gàttandu itam nañu seet nañu koy defee mooy nañu ko dëppale ak sunna waaye ay ndaw yu góor ak yu jigéen di jaxasoo wax ne dañuy gàttandu safar loola kuy dàkk bëggu bëggug sëriñ bi doo ko def nañu fexe ba fu ñu koy defee na góor ña beru di jëf yëfi góor jigéen ña beru di yëf yëfi jigéen waaye jaxasoo bi itam nañ ca bàyyiwaat xel ndax di sàkk lu baax leneen fekk la ca mat na moytu mat na muslu ñi ngi ñaanal nag ki nga xam ne mooy sunu kilifa ñun ñëpp ne ci kanam mbooloo mi yàlla gën koo sàmm yàlla dolli ko wér yàlla guddal fanam ba limu naal ci diina ji naal ko ci liggéey bii muy liggéeyal sëriñ bi suñu boroom defal ko ca ndam lu kawee njortam ndam lu kawee njortul jullit ñëpp ndam lu kawee njortul réew mépp te ñu ànd ko ak moom wéttale na lislaam liggéeyal na lislaam yàlla na ko yàlla dolli kàttan dëbb ko kàttan ba lépp loo xam ne lu mu naal la daal yàlla na ko yeggale te ñu ànd ko ak moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu

Boom!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 الحمد لله الذي هيأ لنا من أسباب السعادة ما لم نجد لغيرنا إليه سبيلا نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره اعتمادا على عفوه وتعويله wa natawakkalu fi l-umuuri kullihaa alayhi wa kafaa billaahi wakiilaa wassalaatu wassalaamu alaa zurwati sharafi allazii lam yuxlaq lahu masiilaa lam yaxluq lahu masiilaa wa alaa aalihi wa sahbihi allaziina faddaluu فضلهم الله على الأمة تفضيلا أما بعد فيا عباد الله من المعلوم المتواتر لدى كافة أهل الإسلام أن الله سبحانه خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي عبادته سبحانه دون سواه قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وجعل لعبادته شرطين أساسيين لا تقبل العبادة إلا بهما وهما الإخلاص وهما إخلاص العبادة له وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم المعلم الأول لأمته بلغ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة والتحق بالرفيق الأعلى تاركا صحابته وقد استقوا من معين القرآن الخيار ومن ينبوع سنة الزخار ثم جاء بعدهم التابعون وتابع التابعين يدافعون عن مبادئه ويذبون عنه bal kaanu kama qaala sallallahu alayhi wa sallama laa tazaalu taa'ifatun min ummati zaahiriina alal haqq laa yadurruhum man xazalahum wala man xaalafahum xattaa yaatiya amrullah wa hum kazaalik fa xafida allahu bihim sunnata kama takafala huwa bi xifdi alqurani wa sawni inna naxnu nazalna dikra wa inna lahu la xaafidun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 إن الله سبحانه وتعالى لا يزال بمنه وفضله يقيض للإسلام دائما سرسذمة من المخلصين يثبتون على المنهج القويم والتعليم السني الحكيم وأظهر لهذا الدين آية من آيات الله الذي هو قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم المضاف اسمه إلى المضاف اسمه إلى اسمه كالصلة والموصول alqaimu bitawjihi lil ibaad ila taxqiqi ibadatillah kama yuxibuhu wa yardah wa huwa tariqu tariqu rasuli sallallahu alayhi wa sallam almutamassilatu fi aqwalihi wa afcaalihi liqawlihi taala wa in tutiicuuhu tahtadu anaara almahajjata albaydaa xataa saara layluha ka nahaariha laa yaziigu anha illaa haalikun akrama alquraan wa xamaahimaa وحفظه أولاده ومريديه فأصبحوا بفضل الله ثم بحسن توجيهه لهم ناهجين منهجه في سلوك حسن فحفظ الله بهم السنه ولا يزال يظهر فيهم علماء محققون تخرج على أيديهم نجوم ومصابيح من تبعهم لا يضل ولا يشقى جزاهم الله عنا وعن الأمة الإسلامية xayral jazaa amiin yaxfirullahu lana wa lakum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

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله بهاء نحرا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر النفعة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 allahu akbar sami allahu liman hamid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 ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله asalaamaaleykum. asalaam.